asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax ne nag tey ñu ngi alxames 7 octobre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay li ñoo ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 7 octobre 2021 dañu ñëw ak yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw indi ñu Ama Baldé boo xam ne daal ama décidé la fi mu nekk nii maanaam taful fawul te itam nag reewul la mu nar daal ne na roi des arènes ba maanaam couronne ba daal la fas yéene nangu ci loxoy Modou Lo maanaam mu koy neex wala mu koy naqare mel ni ki daal ama fi mu nekk nii daal ca kaw lamb ya nga xam ne nii dugg na fa nag di bëre ak ñoom foofa la trouble maanaam yëngal ko ba mu yëngu la mu décidé nag mooy jël couronne ba ca ka nga xam ne nii moom moo di Modou te itam ne na su ma koy gañe moom ama na bëgguma koo gañe gañe nii rek dama koo bëgg a avec la manière loolu du sama ay wax waxi ama balde la yemu ca moom Ama Baldé tamit mu ngi nuy xamal ne daal wala boog mu ngay xamal Modou Lo dana ko juróom-ñaar ci yow maanaam set Modou Lo boo leen tegoon maa leen man kon jàppal ne du ma sa morom tey kay xanaa arbitre soufflé dong mooy tere ma def la li ma la bëgg a def waaye bés bu arbitre soufflé moom da nga xam ne juróom-ñaar ci yow maa leen noon fukki yoon ak juróom loolu su samay wax waxi amaa Baldé la mu mel ne ki nag kenn koo xam ne tamit ka nga xam ne nii moom la fas yéene jàmmaar loolu muy nekku réel la ak marle ginnaaw ba marle génnee démb wax nekku réel tamit tey génne na tontu ko mu mel ni ki nag daal moom la mu gëm daal ne boo bëggee dégg dëgg daal moom ndamam ci marle amu ci lu mu ciy jeexi jaax maanaam daal daa jàpp ne ndam kese lafas fas am ca boobam làmba di dimanche ji nu jëm mu yemu ca moom itam nee na dañoo nekk ci école boo xam ne daal liggéey ba ñuy liggéey leer na itam te teg nañu ko ci yoon te mbir ma jël nañ ko au sérieux moom ma nga xam ne mooy nekkoon réel tamitam xamal na Marley daal loo xam ne daal bëriwut dana ko jàpp ne day lambi dóor ngay bëri de combat avec frappe daal nga am yow Marley loolu sama ay wax ne kuréel la moo ko wax mel ni ki nag Marley moo ma itam ca jamono jooja ñu ngi koy dànkaafu nag ndax fi mu nekk nii day la ko war moo di victoire kese kese ndax nag fa mu jóge moo tax yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko loolu dimanche ji nu jëm la am mel ni ki dimanche jooju nag am na ñoo xam ne amoon nañ ca mbër mu war caa bëre muy waa Grand Yoff mbooloo ka ci waroon a bëre di mobile bu Grand Yoff mbooloo yëgle kaay ba nag kay na nu xamal ne mobile ginaa ba mu taxawee nag bañ a bëre CNC nag jël ay décision maanaam aj écrit ba mobile nekk ñu ne déet na waaye ci la ñuy yem ñu aj mobile ajaale bëgg fàllu ma nga xam ne moo di menaat sa ba nga xam ne moo yore écrit Grand Yoff mbooloo di menaat sa bëri di signé seen ay contrat waaye jamono ja loola amee nag waa Grand Yoff mbooloo moom maanaam nangu nañ ne daal ñoom loola ñoo tooñ moo tax nag ñu ngay jéggulu maanaam daal ka yor sañ wax seen kàddu daal moom mu ngay ballu nee daal li ñu bëgg mooy nañ leen jéggal ndax itam lu mën a xew rek lu ji njaaka bokk ñoom ñooy njaak loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mu ngi nu xëy di nu xam ne daal tournoi Serie A daal war a commencé le 4 ba le 6 novembre daal 2021 mel ni ki nag lion yi nga xam ne ñii daal ñoom ñoo ko war a jongante ñu fas yéene ne tànn nag ñoom gaynde yooyu soo bëggee dégg dëgg yëglikaay bi na nag le once bii nu jëm maanaam di alterné ji ñu jëm daal ca la ñuy commencé nag dugaat regroupement ñu fas yéene nag segg juróom ya nga xam ne nii ñoom la ñuy tànn ngir ñu défendre couleur nationale réew mi mel ni ki nag am na koo xam ne nii moom saison boobu nga xam ne ubbi nañ ko muy saison wu làmb ji muy du jànjeek ko ma jiite amateur yi xëy na tey di ca wax duudu daal la mu xëy xamle ne na lay am ba des daal ne na moom saison bii nu ubbi nii duudu ne na sero violence lan ci bëgg maanaam bëgguñu caa len lenn luy niroog xeetu violence ndax nag jàpp na moom du jànjeek ko daal ne na làmb soo bëggee dégg-dëgg maanaam nañ ñi nga xam ne nii ñoom ñooy fans yi xam ne nekkul ab guerre wala loo xam ne nii lu war a indi ak ñaaw la wala gaañante nee na mbër yi ñoo ko war a seq ca géew ba daal di bëre supporter yi ñoo supporter seen mbër ku daan ñibbi ku ñu daan tamit nga muñ loolu mooy a du jaan jekk ko am na loo xam ne tamit bëgg nañu fàttaliwaat ko wala ñu yeewaat ko ndax lu mu jàpp la ay dat yoo xam ne dat yu kenn daawul fàtte la ci lamb muy ay dat yoo xam ne yu historique la bokk na ci dat ya jàppal du janjeeko na na le 25 décembre nee na boo wégee dëgg-dëgg nekkoon na dat boo xam ne ay bés yu rëyu làmb ñoo ci daan am ñu ne ne waaye dudu indiwaat beneen dat muy le premier janvier tamit bok na ci bés yoo xam ne du janjeeko ne na bés yu rëy la daan andi ci làmb maanaam jongante yu mag a mag moo ci daan am tamit le 4 avril bokk na ci bés yooyu nga xam ne nii daal jàpp na ne bokk na ci bés yooyu nga xam ne la yoo xam ne da daan am ci làmb du jànjee ko daal ma jiite amateur tey loolu la xëy wax moom John Waly daal aw xale la boo xam ne ko liiru jaan la ne nan sama combat ak Sa Thiès bu Sa Thiès daal fi mu nekk nii fisele def nañ ko ko yëglekaay bi moo xëy ñëw wax nu lu mel ne ki doon moom sunu làmb jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi sunu làmb tey lim ñu xëy indil ñu ko ci wàllum xibaar ay làmb mel ne kii nag ah ginnaaw bu ma leen nuyoo ziar leen balu leen àqate baal leen di ñaan yàlla dafa ñu saadatu daare def ko ci réew mi def ko ci àddina bi yépp barke yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag di leen fàttali loo xam ne daal mu ngi waaj a ñëw le 10 octobre ginnaaw lambirent DKR joojee le 10 octobre tamit ku ne xam na ne sama cheikh ba ca lay def anniversaire am muy Lamine Seck kon nag nañ ko waajal parce que ba bu anniversaire doo anniversaire bu ndaw happy birthday laa koy commencé wax que damay anticiper anniversaire. ne ngoon na la comme tool mu kon maa moom noonu lañ mel yaa ngi dégg waaw euh, sëba gerte cin la boolewu leen tool baa leen boole suuf sa àll ba fa la ñu àndi sama digganteeg Lamine noonu la mel moo tax nag maa ngi wax képp ku ma suivre rek nga ñanalal ma ko yàlla defal ko fan wu gudd wér-gu-yaram gën a yokkoom xelam ak xam-xamam ba mu gën a mën a def liggéeyam ndax nag mu ngi def liggéey bu rafet rafet foofu ci Lutte TV moom Lamine Seck 10 octobre mooy anniversaire bi tey nag ñu ngi set octobre ah yëglekaay bi tey lim ñu xëy indil fësalal ñu ko moom moo di ki nga xam ne ni moo di Ama Balde Ama nag mu nekk nii maanaam bu bëggee dégg dëgg moom gardaaju la def ak yëglikaay ba maanaam décision daal la jël ferme foofu ca itam maanaam la mu jàpp daal moom nee na bu bëggee dégg dëgg daal nee na Modou Lo gagné ko avec la manière kese la gis te nee jàpp leneen du loolu yemu ca nee na set Modou juróom-ñaari Modou Lo ama na moo leen ma kon ama nañ ko xamee ci làmba ba mu ci duggee nekk xale ba tey fii mu toll bokk ci lee VIP na mu meloon daal soppiwu ci dara au contraire xanaa kay dafa gën a yokk ci décision maanaam sañ-sañam ak itam wax la mu bëgg et tamit loolu bokk na ci tey li ko may cëru muy jongante roi des arènes parce que mbër la mu nga xam ne nii mu am décision la mbër la boo xam ne ni ama xamul li adversaire am indi moom li mu andi kese kese kese lay lay lay ñëw tagal la ko te itam souvent boo xoolee ñaari defet laa gis mu am ko ci mooy diggante mag nees ak diggante mag guy bi mais à part ça ama mbër mu mu jàmmaar lool rek bu ngeen tàqaliko say mbokk lëg nañ ne la mu ñeen moo tax xam naa ne mu gis ne moom diggante mag Moodu ndam kese la ca gis te set Moodu moo leen man waaye nag danaa ko wax itam ne ko décision boobu mu jël ak itam engagement boobu nekk ci moom ki mu ko seqal tamit yaakaar naa ne da di ndaanaanal làmb muudu xarañ lu ndax le roi des arènes duy te itam fa mu jaar ba doon ko yombul parce que boo ko xoolee muudu ci bind doo ko ko xalaatal déedéet waaye li ko ko may mën nañ ne bokk na ci gëm-gëmam ak sañ-sañ boobu ma wax ci ama nekk na ci muudu tamit ak tamit fonk li muy def ba tax na tey mu taxaw fi mu taxaw kon yaakaar naa ne seen diggante ah xaw ma ko man de xaw ma kuy daan waaye yéen ñaari mbër yi ay boromi jom ngeen li ñuy ñaan daal mooy le 25 yaakaar naa décembre ca la date ba yal nañ ko fekkete tal ko ak lit ni ko day en ko bu nar a tar la yal nañ ko ko bu nu continuer ci moom sunu làmb keneen koo xam ne nii mooy nekku réll bu lansaar moom itam xëy na di wax gis ngeen ko ak marle mi ko waxoon mi waxoon démb la xëy di tontu mais ni olof a ko wax tontu du faro nekku réll moom la mu gëm moom victoire am fi mu nekk ni daal daa mel ni maanaam bu bëggee dégg dëgg daal amu ci lu mu ciy xalaat parce que daa jàpp ne moom lambi dóor la jëm ak marle te gis na ne moom décision la jël te itam ah defanteel na rak moom ba mu saf saab kon daal dimanche incha allah ku ñëw arène nationale ak rent Dakar muy nuyu ànd ak ñoom Pape danga gis journée bu neex a neex a neex a làmb ju nar a neex moo fa dara am waaye nag ne kuréel ak marle daal xam naa ne ay waay ka daanu laa yërëm waaw ka daanu laa yërëm de parce que nag bis boobu ku ci daanu rawatina saison bi ubbi premier grand combat ah lutte avec frappe nga daanu ah dina métti ci yow. loolu analyse maanaam dañ koy bind ci histoire mais nag làmb la il fallait que am ku daan am ku daan parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu ay boromu jom lañ muy marle muy ki nga xam ne moo ne mooy nekku rëll leneen loo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci muy grand yof mbooloo ngeen gis noonu ñu ngi doon mbër yaa ngi noonu mais nag nag ñoom euh, bés boobu nga xam ne ci la marle war a bëre ak ki nga xam ne mooy nekku rëll seen mbër di mobile daf ci waroon bëre ak ki nga mooy bursin bu bawol waaye nag yàlla dafa dogal mobile nekk États-Unis ñëwul pour bëre si bi waa CNC convoqué manager muy bëgg fàllu bi mu ñëwee ah xam naa dañ ko signé la moom tam ne du signé bi loolu amee nag CNC tamit jël seen ay décision aj ko moom bëgg fàllu aj mbër mi aj écrit bi loolu di lu metti bi loolu amee nag ah boo bëggee dégg dëgg ca la écrit ba nag génnee ñoom itam reconnaître xëy na la leen dal waaye tamit di ñaan ak njéggal waaw waaye nag damay wax ni jéggalu baax na trop ci ku wàcc jàpp na nga ngaa wàcc yoon da ngaa war a jéggalu loolu mooy yëfu nit am na ñoo xam ne nii mën nañ ko moytu loolu nag li ma ciy wax mooy écrit yi yéen ñi encadré écrit yi pour man damaa jàpp ne ba écrit boo ko sancee moom am président am bureau administratif bu normal écrit ba defe naa ne décision yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waa écrit ba ñoo ko war di jël ba yu mel nii ñu man ko moytu maanaam ci contrat yi mbër yi di signé ak lu mu mënti doon ñoo ko war di jël maanaam bu ma waxee ñoo ko war jël ñoom écrit bi mooy parce que manager moom la ñu délégué moom moo dox diggante écrit bi mbër mi ak CNC moom mooy signé parce que ménance bi la CNC reconnaître moo koy délégué mu dem kon defe naan écrit boobu tamit war na mën a am baat ci mbër yi mu yore ba nga xam ne nii kenn du fa def lu nga xam ni day indil waa écrit bi problème parce que tey bu fekkente ne mobile moom moo ñëw bëri suul ñooj écrit Grand Yoff mbooloo yépp naan ñax gow lak lakkaale gu tooy lay doo dina metti ca ña ca des amoon ay combat war a bëri loolu lu doy doy waar la waaw lu méttee métti la mais nag bon xëy na yàlla mën na def situation bi dekantaw ba tey ci yëglikaay bi mu mel ni ki nag tournoi CEDEAO bi ñu ngi koy waajal Lions yi war nañ duggaat le 11 octobre bi di ñëw maanaam alterné regroupement ba nga xam ne ni moom mooy ci arène nationale mu mel ni ki nag la ñuy tànn juróom yi nga xam ne daal ñoom ñoo war a défendre couleuru Sénégal ci tournoi CEDEAO xam ne nii mois de novembre war fii nga xam ne ni moom moo di Dakar ñuy ñaan nag suñu équipe comme na ko daan defee rek mu gañe ko muy loo xam ne ni yàgg nañ ko dund muy ay bis yu neexa a neex a neex nañ ko tamit tournoi CEDEAO waaw namoon nañ ko lool mu mel ni ki nag ba tey Euh, bu ñu continuer saison bi ubbi na lutte avec frappe bi war na commencé lutte simple bi commencé na du jànjee ko mi jiite amateur yi nag tey xëy na wax moom nag la muy woote wala fa mu xëy di waxee moom du jànjee ko ngeen gis ko noonu moom ci jàmm lay wax parce que nee na yi nañ xam ne làmb du guerre te itam bëgg nañ saison bu nga xam ne dañ koy bëre ba mu jeex te violence du ci am loolu nag du jaañ wax defe naa ne mooy yoxu kilifa te itam defe naa ne gars nañ ci bàyyi bu baax a baax ma violence bi amul njëriñ parce que mbër bi nga xam ne moom moo signé contrat am war a bëree ko matale si yow mi koy gunge li nga ko war a dimbalee mooy fexe mu matal contrat pour moom mu mën a jóge ci boobu combat pour mën a dem utiwaat leneen waaye nag bu fekkee ne yaa ngi koy gunge ci lu nga xam ne lu koy dugal ci erreur la bokk na a ay violence ak ni ki noonu leneen na caa juddoo te des fois gis mu mi problème wala ñu jàpp ci ay nit xam ne ni mooy loolu tëj leen ci kasu bi te yooyu yëpp nañ ko jéem a éviter ñu moytu ko ba nga xam ne saison wu jàmm dinañ ci dugg mu loolu daal la ñuy wax waxi du jaan jooju di wax ju am am solo mel ni foofu lañ koy tëjee tey di di ko ziar moom président moom président des amateurs bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu képp nga xam ne tamit yaa ngi suivre ci Equivox TV di ñaan jàmm Sénégal di wax nekkoon li ngeen ko xamee rek saison bi moom ubbi na waaye nag nañu bàyyi xel bu baax a baax ne que dimanche moom ah ñoom ale dañu ñëw de ak ñoom Jimbo ñoom Pape Sarr gars yi ñëw nañu ak le 10 octobre rent DKR du mën a ñàkk lamb la joo xam ne nii bu passé yaakaar naa ñëpp dañ ko xel di fàttaliku ndax ëmm seen senior grand bañik rek ci géew benn affaire la marle nekku réel ah Pape Yékini Ibou Ndiaye Obali ca cosaani Ibou Ndiaye Obali ja ak Pape Yékini nga xam ne mbër mu jafee daan la moom noonu nga koy gis noonu ak yeneen mbër yi ci combat ca ne ana ah, ah, borom ayu yow ah Laurent <laughs> ayu wa <laughs> di fekkee ñëpp di ziar ñëpp jox dig daje suba incha allahu rabbi di wax kani bon Sénégal mm-hmm. yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi di balu ñëpp ak di bal ñëpp di remercier waat encore une fois rek ñëpp ñu doon suivre waaye dama leen ko ubbeeloon sànq rek laa koy tëjee happy birthday to you par l'anticipation moo ami mon frère sama cheikh sama xarit sama lépp lamin Seck borom la 10 octobre moo ko moom nañ ko waaja